seen diwlin saalixiina set sell te wóor ak seen café Touba xawdu bu neex bii ñoo leen di may waxtaanu koor الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم بكمي يومي دقل وقتانوي déglu ساكو wi nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte da naan sallallahu ala muhammadin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa nu dikkaat ak yéen ci juróom ñetteelu xaaj ci buntu tuub bi ñu nekkoon doon ko waxtaane ci waxtaan yi jiitu mbokk yi ñu fatali rek ne ci waxtaan wi jitu waxon nañ ne sallallahu alayhi wa sallam nee na buy julli julli jurom di wor wéru koor di génne azaka di wattandiku jurom ñaari kabaa'ir yi muy bakkar yu mag yi sunu borom dina ko ubbil bunti aljana ne ko duggal ci jam kon kabairi yi boo ko yàlla jéggal la saxaa'ir yi ndax yàlla subhaanahu wa taala moo ne in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum kabaa'ir yi nag yan la ay wuute da ci am téere tafsir yi leeral nan ci lu bare bari boo demee ci bu mel ne at-Tabari ku ñuy wax ata nee na al kabair as muy juróom-ñaari kabair yooyu mu ne ñooy faat bakkan lekk riba lekk alali jirim jiiñ jigéen njaaloo seede aw fen def baa nga wax say waajur lu leen metti ak daw ci waxtu wa say bokki jullit di xeex ngir défendre diine ji amna ñu wax ne juroom ñent la amna tamit ñu wax ne ñent la Abdullah ibn Mas'ud nee na nag yi gëna a ci bakkar yu magi muy kaba'ir yi ñoy bi ci ñëk al ishraq billah wutal yàlla morom yàlla moo ñu ko tere ne ubudullah wa la tushriku bihi shay'an jaamu leen yàlla te bu leen ko bokkaaleeg dara moo wax ne moom subhanahu wa taala inna shirka la zulmun azimun bokkaale yàlla ak dara tooñ gu rëy la moo tax mu ne moom subhanahu wa taala fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamuun bu leen wutal yàlla moroom ñaareel ba mooy al iyaasu min rawxillah naagu ci yàlla xettili la musal la wallu la ci boo nekkoon ci jafe-jafe sunu borom moo ko tere ne wala tay asu min rawxi allah innahu laa yey asu min rawxi allah illa al qawmul kaafiruun na loolu yéefar yi rekk ñoo koy def ñetteel ba mooy alqunuutu min naagu ci yërmande yàlla découragé wu ci sunu borom moo ñu ko tere ne laa taqnatu min rahmatillah wax ne wa man yaqnatu min rahmatihi illa dalluun ñu réer ñi rek ñoo koy def al iyaas wal qunut nag daanaka benn lañ am na ñu ne al iyaas moo gën a foor ñaneen al qunut moo gën a foor waaye bu amee wuute bariwut ñeenteel ba te mooy bu mujj bi mooy al amnu min makrillah wóolu pexem yàlla maanaam nekk cig moy te ragaloo ci mbugalum yàlla di def lu ñaaw jàpp ne du mujj fenn sunu borom nee na falaa yaamanu min falaa yaamanu makrallahi illa al qawmu alxaasirun loolu ñiy perte àddina ak àllaaxira ñoo koy def kon ñeent yooyu la ibnu Mas'ud wax ne ñooy kabaa'ir yi am nañu wax ne lépp loo xam ne sunu boroom tere na ko rekk def ga bakkar bu rëy la ku mel ne ibnu Abbas loolu la wax moom Abdullah ibnu Abbas bi ñu ko laajee kabaa'ir yi nu mu toll dane ëpp na juróom-ñaar ëpp na juróom-ñeent neena na juróom-ñaar fukk la gën a jege dem na ba ne sax juróom-ñaari téeméer la gën a jege ci juróom-ñaar teg ca ne bàkkaar du rëy mukk bu àndeek tuub waaye bàkkaar du tuut mukk bu àndeek ñàkk a tuub di di nekk ja di ko def bokk yi kon bu bàkkaar rëy rëy ba ñu jàpp ne bu ñu ko tuubee yàlla duñu ko jéggal ndax jàpp gi ngay jàpp loolu rekk bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy waaye bu ak mooy tuuta tuut ba ñu bañ koo tuub ngir jàpp ne dara duñ ca fekk ndax def loolu rekk bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy kon lépp lu nu yàlla tere rekk nanu ko wattandiku te lu ñu ci juum ba def ko ñu tuub ko tuub gu sell ngir yàlla jéggal ñu ko seydna ali karamallahu wajhahu nee na seyiduna abu bakar alsiddiq radiallahu anhuma wax na ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله illaa gafara allahu lahu ku yëg ne def na bàkkaar jóg jàpp ba set daldi julli bu sëlmalee jéggulu boroomam yàlla dana ko jéggal am na beneen xadis bu wax ne ñaari rakka lay doon xadis boobu al bayhaqi ak ibnu xabaan solo nañ ko wax nañu ca ne bu doonee fu wéet foo xam ne amatu nit ca lay gëne ba tey ñu ne boo ko defee ci barab bu màgg maanaam barab bu ñu wormaal ndaxuk sellam ca lay gëne waxtaane woon nañ tamit salaatu tasbiix ak ni nu koy defee muy julli gu am solo lool ci far ay bàkkaar kabaa'ir yi ak saxaa'ir yi bàkkaar bu mu mën a doon ak lu mu rëy rëy boko julle jullee ni nu ko waxee sunu borom jéggal lako sallallahu alayhi wa sallam moo wax ñewna ci hadith euh gaa yu bax yi timit andi nañ ko seeni téré ku melna cheikhuna al euh way nako ku ñu wax cheikh abdul wahab ash-sha'rani timit andi nako ci lawaqih al anwar al qudsiya fi bayan al uhud al muhammadiyya muy lu wéré wér kuko soxla bo xolé ci waxtani koruk daw gi defon nanu ko dang ko ca gis insha Allah taala kon fofu la yam ci buntu tup ndax buñ ko doon waxtane fi ba kor gi euh duñu ko jexal kon ñu yeb ak yéen ci buntu tup bi tay ñaan sunu borom boole ñu ci jariñ ñun ci daraje rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk mi yow mi doon déglu waxtaan wi ñoo ngi sàkku ci yow nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donte da nga naan sallallahu ala muhammadin اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته